يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترعبا بلا أداد لا زلت ضيفا كريما سائرا أبدا مكرما بقيرا تحات وسدادي بوكي دي بوكي طالبي bokk yi jàkkaarloog ñoon duñu seetaan amaat nañ mbégte di sant borom bi tabaraka wa taala di fet di lewaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim di toog ci ëttub jàmbaari lislaam ji nga xam ne dundam gépp liggéeyal Serigne Touba ci téereb yàlla bi rek la ko defoon mu di Serigne bu Mbacké moom Serigne Touba Xaadimu Rasul ñu jëlewaat ndigal nag ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général kullu murit ñu ñaan sun borom yàggal ko fi lool te dolli ak wéram mu jaar ci Serigne Cheikh Ahmadou mbake mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Serigne Souhaïbou yal na yàlla guddal fanam lool te guddal fanu njabootam gépp ñu fas yéene woote bis bu jëm ci sun kanam di bis bu tedd di bis bu màgg bis boo xam ne ku ko fàttaliku wala nga dundal ko am nga ñaari tuyaaba muy bis bi nga xam ne mooy juróomi fan ci weeru koor sun borom subhaanahu wa taala digal ci jaam yi waaye berndeel ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci weeru koor bis boobu la Serigne Souhaïbou feeñe woon jamono ca njaareem moom nag ci la ñuy fàttaliku ñu ngi nuyu bokki jullit yëpp fuñu mëna nek ci aduna di ñu déglu ak di ñu sétan di leen balu aq di leen bal aq di ziyara tay nuyu الشيخ محمد المنتقى ميغا خامني مو في توغي جتاي الشيخ الخديم غناو بيغا خامي ني سيرني شيخ يوني نما ما لا جان ديغل لي مو ياسال كو كون موم ميغا خامني موي كليفه كيرغي di kilifa ak yoon wi ci wuturam la ñuy tàmbalee wax ji ak ci ndigalam di ñaan yàlla mu may ko gudd fan ak wér ba lim yéene liggéeyal Serigne Touba ca xam-xam ak bennale ak defar yàlla may ko ci ndam ci dara yi Serigne Touba Serigne Cheikh dafa waxoon ne naa wax ci turam. te bu ñu nee turu Serigne Cheikh nag turu Serigne Abdoul Ahad ak Serigne Fadilou ak samay rak ñoom ñëpp ñu ngi ci benn tur benn baatam boobu yi kon njabootu Serigne Cheikh bu gépp ñoo ànd ak seex Serigne Cheikh bu yëpp ak taalibe Serigne Cheikh bu yëpp di woote bisu Serigne Cheikh bu bi gannaaw bi ñu ci amee ndigalu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñu yeesalaat ko. ci juróomeelu fan ci koor loolu nag moo waral mu waxoon nee naa ànd ak samay rakk te bu ma tuddee sëriñ abou mi moom si abdul ahad yóbbaale na ñëpp li tàmbalee ci njabootug sëriñ tubaa gi nga xam ne ñooyam ci bis bi ñu ngi leen koy fàttali deen ci seenu njabootug li tàmbalee ci mm, mamor ante sëli ak kum jaboote mam balla aysa ak kum jaboote njabootu maaram gépp ci wetu ndey ak ci wetu baay ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokke askanu mbusoobe gépp ak askanu mbaakol gépp ak bokk yëpp ak seex yëpp ak fu ñu mën a ne ñu ngi leen ko yëgal ñu ngi koy yëgal it mboolem turuxu suufi ci Sénégal yëpp mboolem këri diine yi bàyyiwuñ kenn di jokk bokk diine gi ak bokk deret gi ci ñoom ci wàllu addina it ki fi yàlla teg di président de la république ñu ngi ko koy yëgal ak képp koo xam ne daal da nga yëngu ci réew mi euh, ñu ngi lay xamal ne bis bi ñor nañu lool te itteel na ñu ngi la ko yëgal te lay ci séentu li aju nag ci programme bis bi ak diggante njàngum alquran mi nga xam ne moo ci am solo ak ña koy jàng ak nañuy doxale bis bi li ci aju lépp man damaa fa bon ndigal li biñ ma ko joxe ma def ci lama man sama kem kattan te àndoon ci abo sama doom ji tàggat ko ci ba man ko mu ànd ceeg ki magam ak rek kam kon nag loole laa fa baat yeesalaat jox gi ma ko joxoon ndigal li mu yore programme màggal gi nam ko yore woon kon mi ngi ciy ànd ak i magam ak i rakam ci liggéey bi. sëriñ Cheikh it mi ngi fàttaliwaale addi yi nga xam ne doon na ko sàkku ci bokki taalibe yi mu andi ko ñu dajale ko yóbbul ko sëriñ Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba ñu def ko ci liggéeyu sëriñ Touba bi ci université bi loolu waxoon na ma woote ko yëg nañ ne it ñiñ ko dénkoon compte bi ni ñaa ngi ci joxe bu baax waaye dafa bëgg date bi ñu joxe woon yokk ba fukki fan ak juróom ci kor ñu door a liggéey bi bu ko defee ñu joxe wutoon nañ góorgóorlu bu baax ba joxe balaa booba ñu joxe woon it ñu jaajuwaat bu baax tax na ne liggéeyal sëñ Tuubaa moom amul noppalu. di ñaan nag sëñ Tuubaa bi tax mi tax mi tax ñuy màggalal sëñ bu mu gàttandu ci yërmandeem ak ndimbalam mm, bañ egsi ak jàmm luñ ci def sëriñ bi rek tax sëriñ bi rek tax te sëriñ bi nangul nu ko. mu doon jëf ju sell joo xam ne da koy nangu. ñu ngi yëkkati nag sunu kaddu ci si ndigalu sunu kilifa yi nga xam ne dañoo bokk kër gi te sëriñ Mouhamadul Mountakha Sylla mii na ci bopp bi ak sëriñ Abdoulaye juuf ak mbooleem seex boo xamante ne bii dafa aju ci kër gi te nekk ci seen ginnaaw ñuy sakku fub jullit mën a nekk lu mu sori sori sori nañu fas yéene tàmbali njàngum alxuraan mi. ak istighfar ak salatu xala nabi ak njàngoo khas ay mi luñ ci te selal ko hadiyal ko serigne bi ñaan suñu borom doli ko yermane ki leer ak kum fa fek ak ko fek ñi ngi jox ndigalit kep ko xamni ki dafa aju ci seen ginaaw bon agge ci bis ba lo japp nga bayiku te jiitu si bo dikke nga nek fi nub taalibe wara nek ci kërub sëriñam ba gan ni ñew nga mujje fi it nub wara mujjé ci kërub sëriñam ngir lañ wara defar ci ginaaw bis bi serigne bi mi ngi soñi daayira yi tourno nañu daa def ñu def lu ko raw te xam ne lépp loo xaay jëf nañ ko ci mi ngi aju ci ñiy jàng alxuraan bu ko defee kon li muy ñaan torondoo yi li ñu mën a am lépp nañ ko dajale su weer wi toro ba am ñetti fan ñu indil ko ko bu ko defee mu yiwee ko ñi nga xam ne ñooy daare alxuraan yi daare yi nag ci la sëriñ bi soññee tàmbalee ko ci jumaay Tuubaa ji ak mboolem daara yoo xaye nekk na ci biir Tuubaa ak képp koo xam ne nekk na ci biir Sénégal ak ku nekk bitim réew fépp fu daare kaamil wala jàngkatu xasida sëriñ baa ngi lay woo ngir nga jàng xasida ak alxuraan yéen yool bi sëriñ son bi mbàkk yàlla yokk leeram te itam mboolem way dund yi fi nekk si ñu ñu jariñu ca. ñoo ngi yëkkati suñuy kàddu ci ndigalu sëriñ Abdou Samad mi nga xam ne mooy jëwri mooy jëwriñ sëriñ bi yor kàddoom jëmee ko ci e, yaatal woote bi nga xam ne def na ko te jëme ko ci wàccaay bisi bi nga xam ne dañ koy defal sunu jàmbar ji sunu sang ba Cheikh Abou Madar Chouaïbou muy bis bi ñu koy màggalal di ko ci fàttaliku di ko ci di ko ñaanal kon dañuy jokk rek ci kàddu sëñ bi gën koo yaatal ni mu ko waxee commencé ko ci euh, ni mu ko waxee lépp solo ci li bis bi te gën leen caa yitteel mooy njàng alxuraan mi nga xam ne at mi jot danañ ko soññee niñ ko baaxoo defe it lépp luñ ñu koy def dañ koy def ci ngi ci njiital rabitul madaris alquran bi nga xamne serigne sëriñ Basiru mom Cheikh Amadou Fadal ak serigne Basiru Mbàkke mom suñu habibu ñoko jité ndax bis bi mom bis bisu alquran la ndax kiñ koy def kiñ koy defal alquran alquran rek mo do mo do léppam kon ñi lañ leen soññ bu baax baax di ci soññ mboolem daari xol daari daari alxuraan yëpp nak ak daari kamil yëpp ak fa ak fu ñu maa bu magal jubsee am amna bis yu ñaan tan yo xamne ne dañuy dañuy soññ dañuy soññ daayir yi ak mboolem ñi dëkk fii ci kër gi li wër kër gi ak Madiyana ngir ñu setal setal kër gi setal setal dëkk bi. ren it fas yéen fas nañ ko yéen defar ci ndiglu sëriñ bi ñu ngi ko jàpp wala le deux mai ak le ak trois mai ñu ngi ci mbooleem mboolem daayira yi ñu ko baaxoo àndal ba ci yi ba ci groupement yëpp yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ci ci li wër ci li wër kër Sëriñ Suhaybu ak Madiyana ak ak mbooleem rek foo xam ne dañ danañ fa amal màggal gi mooy mooy fépp foo xam ne njabootu Sëriñ Suhaybu ña nga fa eh, danañ danañ ko setal eh, bu baax a baax incha ba tey ci wàllu programme bi am na table boo xam ne moom it at mu ne dañ koy def euh, ci nga xam ne mooy ubbi waxtaan yi ñuy def ci màggal gi euh, boobu nañ ko daan baax nañ ko baaxoo def rek lañ ko defaat at mu jot dañuy tànn kenn ci kër njabootu Sëriñ Son bi defee ko fa euh, ci rawatina ci njaboot njabootum gu jigéen gi nga xam ne ci lañ ko woon ren nag koo defee ko soxna moom moom Cheikh Son bu boo xam ne dañ ci doon amal ay ay consulta consultation gratuite loolu yaakaar naa ne ñëpp ñi nga xam ne ñëwoon nañ ci daaw gis nañ solo sim amon, amoon moom it ñu ko jappar ren dimanche mu war nek euh dima dimanche la war nek le 5 le 5 mai yaakaar naa mooy tool to tolloog ñaar fukk fan ak juróom di di bisu seen bu njëkk bi. conférence bi nga xam ne sër sëriñ son bi bax bax nañ ko def at at mu nek te mu nek muy nek ñetteelu fan ci ci wéru koor gi euh momit ñing koy ñing koy yegal mbokk yi mbokk mbokk yépp da ko yegal mbokk talib yépp ran nak ñing ko tuddé soxna Maymuna Kubra moom Seexul Xadim bisu màggal ga xam ngeen ne na na nañ ko baaxoo def rek genn soppeeku amu ja buñ xëyee mboolem daare alxuraan yi nga xam ne ne nekk nañ ci dëkk bi te a ñëw ak mboolem kuréelu xasida yi danañ àndandoo ñëw fii ci penc mi yéen fi jàng alxuraan mm, ba ba ba ba tisbaar buñ sëmalee tisbaar moom it nañ ko baaxoo defee am na benn conférence bu mag bu ñu baaxo baaxoo amal moom it di ci waxtaanee ci dunduk suñu son bi akub liggéeyam moom it diggante tisbaar moo fay am ci penc mi bu ñu sëmalee taksaan nag ci la bi Eh, wéyal ko ba waxtu dog eh, sëñ bi eh, buñ buñ dogee ba noppi sëñ bi xeewlu sëñ bi yeewu yeewu mboolem yëpp leen kon loolu mooy solos bis bi ñu ngi soñ ñëpp rawatina nag ñi nga xam ne ñoo bokk ci bi nga xam ne ñoom la sëñ bi jël liggéeyu màgg li teg ko ñu ngi ñu ngi ci soñ ñëpp xam nañ sa waxtu wax jamono yëpp ñu ngi ñu ngi ci di liggéey waaye ñu ñu gën leen ci soññi nañ ko baaxoo defee bu weeru teroo muy weeru baraxlu bi ba màggal gi ajjuma jo ajjuma ju ne dañuy daje fii ci kër gi ngir waxtaan màggal gi loolu ña nga ci ngi ci soñ ñëpp di ñaan suñu mboo defal ñu tawfeex bu ñu àgg ci ak jàmm te mbooleem lu ci sëriñ bëgg sant ñu ko nu def ko nam ko nam ko bëggee te lañu cee ngërëm sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah kon bis baa ngi noonu ñoo ngi ciy séntu ñëpp di ñaan képp koo xamante ne bii jaayante nga teew si fii ci Touba yàlla mi nga xam ne moo mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo ci darajey Cheikh Sohaybou Mbacké waaye barke weeru koor waaye darajey Xaadimu Rasul wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu